justice Moustapha Dramé yàllay kase a fait face aux juges il risque gros maanaam daal bu muy tuur kon daañu ko daan daan yu mbirum yoon ci la ñuy wax le maître coranique Moustapha Dramé ñu ne kon ab jàngkatul Quran la ñu koy woy itam yàllay kase bu muy tuur daañu ko tëj deux cents de prison ferme ñaari at yoo xam ne ci kaso bi la koy tëdd ndax kat moom lu bokkut ak li ñu wax ne moom la muy jàngalekatu Alxuraan daf caa boole te mbirum ñaan maa ba tax na Euh, présenté ci réseaux sociaux yi nañu tam daan wane ay miracle ci réseaux yi loolu nag moo ko xamalee ku ñuy wax Omar Thiam Omar Thiam moom yi Omar Thiam moom yi moo ko yóbbu ci yoon ba taxaw doon nañ ko àtte diggante ak moom démb ca tribunal flagrant délit bu Dakar ci wàllum escroquerie muy njuuj njaaj ci wàllum charlatanisme waan daal wàllum ñaan gi ci aju rek escroquerie muy njaaj ñu njaaj boo xam daal tuumaal na bu topp ci quatre virgule bu toll ci quatre virgule deux juróom fukki junni moom victime bi la muy tumaal Moustapha Dramé mi mooy def ko waxoon daal ci man-manam mu jàppale ko ngir mu mën a dem kon ca bitim réew fa ñuy wax El Dorado man naa muy États-Unis El Dorado loolu daal la ko gëm loo woon ne ko mën naa nekk jaare ci li ko suñu borom may ci wàllu mystique moo tax nag mu mujjee jëflanteeg moom jot a jël daal alal jooju teg ko ci moom jox ko ko ngir bëgg mu dimbali ko moomu Omar la mu xam le day mooy nee na mi nga xam Moustapha Dramé mii jaare ko ci application bii di TikTok nga xam ne daal ci TikTok boobu la doon jaaree doon fa fësal ay mbir yoo xam ne daal yéemoon na ko lool ci wàllum kiimtaan ci maaman lool nag ci la jaare ba xam ko ñu seq ay waxtaan mu dem daal ba seqoog moom gëmloo ko kattan gu mu am ci wàllum mystique muy ses talents mystique waaye daal ba mu jëfanteeg moom ci wàllum bëgg a ci aju mu daal di koy nag booleeg ab xaritam moom Moustapha Dramé moom moo ko booleeg ak xaytam ci wàllu googu mu koy dimbali nga xam ne daal itam moom mu xaw a nag moom tam moom ci wàllum kattanu maanaam daal ci wàllum mystique gi moom fa lay jàppandi fa lay jaare ngir mu jàppandi waaye nag kee moom ci wàllum saayir si maanaam daal moom day téye baatin bi kee téye saayir rek ngir mu mën a tukki ci anañu jàppandi Omar Thiam mi ci njëkk nee na kon un virgule deux cent vingt cinq millions kon la ko njëkk a jox muy million bu toftal ñeen fukki junneeg juróom waaye nag ca pandaw ga mel ne kon la mu doon njott ak yaakaar lépp amu ko woon moo tax mbiru mu ngi ci kanamu yoon atte nañu leen waaye daal moom mi su kon lu gis gan de dina ko ci fekk ci loolu yi muy ñaari ati kaso xabaar bii ñu ngi ko sukkandikoo ci seen news moom Doudou Ka s'explique sur l'affaire AIBD ce huit milliards de francs CFA don El Malick Ndiaye parle El Malick Ndiaye dafa am révélation yu def fan yi fële ca AIBD waral na Doudou Ka ma woon ci ay jamono génn di ca wax andi leeral accusation yu grave la El Malick Ndiaye def mu ne kon daa continuer ci li nga xam ne ñi ngi koy wax ci ancien régime ba fi woon di président Macky Sall ak ña mu àndaloon ginnaaw kili eh, limaana joy réewum Sénégal Ousmane ci session bu mu jàppane daal session bu bon la woon bu ñu yore woon réewum rawat na ci wàllum koom-koom session économique et financière bu réewum Sénégal ne daal président Macky Sall ñi def nañ ko ci réew mi El Malick Ndiaye topp ci ay tànkam ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens daal di kon yëkkati ay kàddu itam ci commentaire bés boo xam ne Pastef ko attaqué waat bu baax a baax a baax régime bi fi ne woon tuumaal leen daal ci jàpp ne nañu yore woon alal réew mi dafa doy waar lool lool lool lool jàpp daal ci réew mi fépp foo laal rek ci mbooleem ministères yi ay scandale ma nga fa boo ko ci yem wax scandale bu ma xam daal cay fa mu yilif ci la bokk mu ci AIBD moo xam daal dafa am benn marché fictif bu huit milliards francs CFA bu ñu amal ne dañ ci jënd matériel matériel matériel yoo xam daal dafa ñeel aéroport ba matériel en yaakaar noonu la tudd de waaye daal nee na mars euh, boobu yi bi ñu ko xaymaa toll na ki juróom-ñetti milliards franc CFA ministre Doudou Ka ci ay jamono woon nga xam ne moom moo jëloon dogalub jënd matériel boobee nee nee na daa waxoon daal ne mbir mi dañ ko dugal ci biir secret défense maanaam njënd ga lu ñu fësalul woon la woon mu ne jot nañoo joxe ca matériel boobe sept milliards franc fa mu des kon des na benn milliard waaye nag mat na ñaarat boobu léegi matériel boobee indee guñu ko maanaam livré ñu ko te matériel bi bi nga ko jëndee ci diggante trois jàpp six mois ci la war a ñëw mu ne kon loolu ab marché fictif la marché bu nuy fekk firndeel ci kaw na lu am la fekk ci suuf dara amu ca jaara fa daal damal daal wut ci xaalis la mu ne nag xaalis boobu du laax saay faaw ñu jënd ji ko duñ ko bàyyi noonu loolu yi nag El Malick wax yëpp ci la duru ko kon génn moom mii nekkoon ministre des transport aériens et du développement des infrastructures aéroportières nekkoon itam ancien directeur général de l'aéroport de l'aéroport international Blaise Diagne AIBD SA daal di génn yëkkati kàddu dëggam ci mbir moom yi weddi bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la El Malick Ndiaye wax ministre bi daal daal dinay wax ne El Malick li mu wax nii ay affirmation la yu amul benn preuve daa toog di wax la ko neex rek waaye li mu wax dara amu ci daa nekk di wéyal ci la ñu nekk rek mooy wéy di yàq der yàq deru ñi fi woon ci li muy wax na daal dañoo jënd ay matériel pour juróom benn euh, aéroport international ci réew mi te yoo xam ne mi toll ci euh, juróom-ñetti milliards te loole kon amul El Malick ne euh, Kane dara dara amu ci nee daal la mu la ñu nekkoon rek lay wéyal mooy di jéem di yàq image su régime bi fi nekkoon ñi jiitoon réew mi daal nguur gii fi nekk wuy di yàq seenub der ci loolee képp la El Malick Ndiaye wax waaye li mu wax dara amu ci waaye itam El Malick Ndiaye boo ko déggee mi wax da ngay xam ne ci dëgg-dëgg nag kii kattan moom amu ko maanaam xam-xam moom amu ko li ñu ko dénk daf koo dépassé amul xam-xamaw yor ko ndax conviction sax day feeñ ci bi wax ci wax ji lu ñu rawatina wàllum sari yoog wàllum online maanaam ñaar yooyu maanaam waxam ci moom sax daa cohérent dafa dafa taxawul conviction daf ci am mu ne depuis bi ñu ko faleeg léegi génn yi muy génn ci média lu bëree bëree bay di wax depuis ba ñu ko falee ñaar nga ciy jàpp mooy El Malick mii amul xam-xam li ñu ko dénk daf koo dépassé kattanu yor ko amu ko waaye itam ñaaral ba itam mooy jéem a yàqub deru ñu fi nekkoon képp waaye itam yàq derub sama der man mii nga xam ne maa nekkoon fi seen def fi résultat yu am solo bi ma koy jiite El Malick Ndiaye daal yàq sama der képp tax mu génn di li muy wax nii lu koy firndeel lu am amul yéen Sénégalais yi xam leen ne régime bii fi nekk dañoo nekk rek ci ay pexe yàq deru ña woon loolee ca kaw la tàmbalee El Malick Ndiaye ci yoonee képp la nekk di ko wéyal